ñu ngi nuyu mbokki Sénégal ak képp ki nga xamante ni yaa ngi ci diaspora bi di nuyu bépp citoyen ak citoyenne bi nga xamante ni yaa ngi yeewoo fii ci commune bu Ross Béthio comme ni ngeen ko xamee élection présidentielle yi daanaka mu ngi waaj agsi te loolu tax na ba suñu njiitu réew de président de la république mu tabb ki nga xamante ni moom la ñu wax Amadou Ba pour mu nekk suñu candidat ci élection présidentielle yi ñu dëgmal euh, Amadou Ba Amadou Ba nag bu ko président tabbee ñun dañ ciy kontaan te fas yi ne ko jàppale ci bépp façon jàppale bi nga xamante ni gën na pour que incha allah rabbi élection yi ñu jëm mu mën koo gañe ndax xëy na président ci lu tax mu tàmm Amadou Ba nekk na ki nga xamante ni ku am xam-xam la ku am expérience la dossier politique yi am na lu mu ci maîtrise yu bëri waaye aussi xam na ci ko ko ci nit ki nga xamante ni dafa am ay valeur ak maanaam ak ay euh, qualité yu baax a baax donc loolu bokk na ci li nga xamante ni président de la république taamu na Amadou Ba ñun ñu jóg fas yéene koo jàppale incha allah rabbi ci élection yi nag yaakaar naa balaa muy tàmbali ñu ngi def li nga xamante ni moom la ñuy wax les parrainages

ndax xam naa ni metti na lool ngay yóbbu yónni ay mag ay ndaw ñuy nekk ci àll bi di dem di jël carte nit ñi di def jël ay parrain pour maanaam suñu candidat mën a am suffisamment de parrain pour mën a nekk kandidaa ci élection yi loolu xam nañ ne jafe na waaye ñu ngi leen ci remercier di leen ci encourager te di leen wax na leen li ci kanam jàpp nañu mooy dàq fuuf incha allah rabbi euh, bu ce weesoo ci wàllu parrainage nous ñuy xamal askan wi également que ñun ci suñu politique comme nous ñu ko faral di politique de développement la D'emb, ñu ngi doon def wax campagne de vaccination nationale campagne nationale de vaccination du bétail comme nous ñu ko di def depuis ñetti at at bu jot bu état bi lancé campagne nationale de vaccination ñun dañ ciy teg suñu loxo ci naka mu di ne dañuy jàppale ñi nga xamante ni mooy éleveurs yi jàppale leen ñu ñàkkal leen seen i nag gratuitement ren jii mu nekk ñetteelu édition bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal démb fële ci ray Raynaabe campagne boobu nag yaakaar naa ni buñ koy def dañuy jàppale maanaam président de la république ci vision am mu di ne kat dañu fexe war a fexe ba nga xamante ni euh, lépp lu ñuy am ci wàllu production animale mu nekk li nga xamante ni lu qualité lay doon. démb maa ngi koy wax ci rayon naa boo gisee solos euh, ñàkk bi ñu ciy teg suñu loxo ndax duñu bëgg lépp la nga xamante ni ndawal la bu ñu war a jëfandikoo fii ci somi commune bi wala également mu nekk la nga xamante ni meewloo ñu koy jëfandikoo ci commune bi mu nekk la nga xamante ni qualité la te loolu ñàkk yi rek moo ñu ko mën a may kon jàpp ngeen nii ni war ngeen xam ni kon ñàkk yi am na solo te ñun duñ ci mës dellu ginnaaw ci di ko appuyer bu loolu weesoo également ñu ngi ci jàppale jigéen ñi ci wàllu maanaam ñu taxawu taxa euh, ñu taxawal ay GIE euh, ñu ngi ci yëngatu te incha allah rabbi dinañ ci continuer ndax fi may wax ak yéen jot nañu taxawal lu tolloog fukki GIE yaakaar naa sax ëpp na ko te fukki GIE yooyu tey jii boo xoolee lu mu am ci ay membre war na dem ba pratiquement duy jege ñaari junni wala sax mu ëpp ko kon loolu déjà dara la te yaakaar naa du ñu yem foofu dañu ciy continuer waaye nag aussi bu ñu wax ay ay jàppale ay jigéen nekkul ñu ci ci ne dañuy jàppale jigéen ñi rek yem ci maanaam jàppale leen ñu taxawal ay GIE rek ñu yam ci waaye incha allah rabbi fas leen lañ leen accompagner financièrement te loolu ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy xaar suñu tànk tubéy di ci dox guddeeg bëccëg pour que loolu mu sotti te am nañu yaakaar ne incha allah rabbi niñ ci nekkee yàlla mën na dogal asaka incha allah rabbi ñoo loolu ñu am ci ndam bu soobee yàlla euh, ajuma bi passé nak don nañu accueillir ki nga xamanteni ni le premier ministre Amadou Ba ñu accueillir ko fi ci avec une forte mobilisation bi nga xamanteni mom ci bopam bi mu démé Richard Toll wax na ko wax na ne gis na ni accueillir nañ ma def nañu mobilisation bu mag ba di wax nan mom sax mënon na sax yam fi dellu Ndakaaru ndax li mu gis doy na ko loolu nag dañ koy sante yàlla ndax loolu ñun ñi am nañ ci rôle bu am importance bi nga xam ne ni def nañ ko ci waaye nag ci tert boobu noonu am na li nga xamante ni moo ci ñuul wala moom moo ci nekkoon gàllankoor ndax suñu militant yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon dañ leen a agressé am na ci ñi nga xamante ni dañ cee jëlee ay gaañu gaañu banderole yi ñu yóbboon di teru le premier ministre Amadou Ba lépp la ñu xotti ci ñetti yoon ay nit duñu agressé te nit yooyu jàpp nañ ne jógewuñu fenn lu dul Fally Seck moo leen jabal ci ndigalam la ñu ñëwee pour maanaam yàqal ñu suñu mobilisation te yaakaar naa ni euh, du mën a réussir nañ ko waaye aussi am na li nga xamante ni def nañ ko te waruñu ko woon def wuñ ko benn yoon ñu ngi koy naqarlu ba fa naqarlu yem parce que lii Ross xamu ko musu fi am mën nañ ne kon bu fi amee Danaka, nit moko fi indi te nañ ni kenn indi ko fi kudul fali Faly te loolu nag ñun japp nañ ni dinañ ci jóg dinañuy def suñu rapport dinañu jël vidéo yi envoyer ko instance au APR yi pour que manam ñu mën a situer les responsabilités parce que li dafa nek la nga xamante fi waratu fi am fi ci commune de Ross parce que li fali Seck def rafetul c'est irrespectueux nekul li nga xamante doomu adam war na ko def nekk li nga xamante ni góor na war na ko def nekk li nga xamante ni nit ko am dignité war na koo def en tant que maire de la commune de commune de loolu war na ko jomb rafetlu ko benn yoon te ñu ngi koy naqarlu comme ni mu ko waxee léegi ba fu naqarlu yam dinañ ci nag def suñu ay jéego ba nga xamante ni loolu bu soobee yàlla incha allah rabi dootul amati fii ci commune euh, commune bu Ross euh, li nga xamante ni nag euh, moom lay mën naa ni jeexalee samay kàddu Euh, moo di ne damay dellu di gërëm population bu Ross ndax lii ba mu amee ñu bëri ñëw nañ fi di ñu masawu coono ñu bëri aussi woo nañu téléphone di ñu wu coono ñu ngi leen di vraiment di remercier ci maanaam soutien boobu nga xamante ni euh, ñu ñu koy apporteel ñu leen ci sant vraiment di leen ci gërëm waaye aussi ñuy xamal ne leen ne incha allah rabbi élection yii duñ ci des ginnaaw. ndax ñun coalition benn Bokk Yaakaar la ñuy nekk te kenn duñu ci jële fas yéene nañ ci dem ba jeex tàkk ba président Amadou Ba am ci ndam incha allahu bi loolu mooy li nga xamante ni tànk ñu war a fas yéene dox ci élection yi te dañ ci dox ba lii ñu bëgg lii ñu sumb lii ñu mbébét ñu am ci ndam ci bàkke Seydina Mohamed kon maa ngi woo ñëpp ndax xam naa ni maa ngi ci xolu waa Ross waaye man tamit ñoom ñëpp nañu jàpp maa ngi leen def sama biir xol kon jàpp naa ni bu ñu jàppoo jàppalante ñun ñëpp ñu booloo dem ci élection yi jàppale ki nga xamante ni incha allah mooy président Amadou Ba bu soobee yàlla incha allah rabbi dinañ am ndam ci bésu le 25 février 2024. kon maa ngi wax vive la quoi vive le Sénégal vive la coalition benn Bokk Yaakaar yal na yàlla mbay ndam ci bésug le 25 février 2024 incha allah rabbi jërë ngeen jëf.